Nous ne ko do yek te mu yor ben courrier administratif war ko euh, insister garde du corps bi dor ko ensuite génn fital dor ko en plus euh, ça nous a fait mal on n'a pas compris parce que nous sommes des porteurs ñun dañ fi nek depuis longtemps nek ci port ñu comprendre Nous ñu ne suñu direction générale Nous fi waré dugg dañuy dañuy demander autorisation pour pour dugg ci direction générale parce que même c'est un bâtiment il y a beaucoup de services

et comportement bi nga fi am directeur général bi manque de respect bi mu am vis-à-vis de travailleurs yi la bëgg mu arrêté. dafay te dafay arrêté da fay arrêté waaw nous sommes nous sommes des responsables dañu bëgg tay le port bi mom fu mu joggé ñu né États-Unis ñun Sénégal gi ñu nekk c'est le social qui prime ici au Sénégal Nous ñëw di ñu wax ay parce que la vocation du port ce n'est pas de faire des bénéfices c'est pas notre vocation lool dañu bëgg mu leer j'ai fait j'ai fait je dis sur le plan social nous avons des acquis et nos acquis il ne touchera jamais à nos acquis ça je lui ai dit en conseil d'administration qu'on ne vous laissera pas faire lui c'est un locataire au port jeudi dis moi chaque jeudi il peut partir chaque jeudi donc nous a un am qui ko du dara que nañ te dañuy wax sax laneen lu Nous avons mais directeur général euh, bu jëlul décision bi ñun bonne action bi mom la wax mom mu fi action bi tay euh, ki la wax garde corps bi action bi mom la wax mu fi parce que mom moy ki nga na nak euh, bi tay tay bi ñu ñëwé pistolet

tay fiñu de jëm ak mom moy suñu problème dañ koy régler par force habitat social ñoko mom nous. deuxième tranche troisième tranche dañ koy régler le plus rapidement possible amul ay négocier on nous dit qu'il y a de l'argent au port loolu lañu wax yagul xaalis ko jox ñi nga yi l'argent du port c'est pour les portières